xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi woon euh, tey nag ñoo ngi fi xaar yàlla ñoo am fi naqar wax dëgg yàlla benn ndaw ñu jógee fi euh, ci anam yi mu jógee nag xaw na ñoo ëmp moo waral ñu def suñu déplacement dérangement ñëw fii ci ay dëkkandoom ci ay mbokkam sees leen pour jéem a am information bu leer bi euh, mbokk mi ñu toogal magam la xaritam la dëkkandoom la mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñun di soog kenn ku nekk sa tur ak sa tamit di wax ne tamit maanaam ñun tey lu ñu dal tey biir Xayra tey daf ñu naqari trop waaw parce que tamit boo gisee tey ñu ñu jóg pour wax parce que ñu daf ñu yàgg naqari xamuñu fu nga waxee xëy na tey suñu borom tey la ko dogal ñoom occasion pour waxoo parce que booy bu ñu ray fii nii booy barki démb rek su guddi man fii laa toog borom na ma fii ba nuyu moo na ma toos na nga def ma nekk maa ngi fii si laa demee suba dégg nouvelle bi ñu ne ma diw dañ kaa rey te rey bi ñu ko rey na benn du si ñaar xaar yàlla moom maanaam xaar yàlla ñun tey boo demee police gën a am sax tey dañuy bind maanaam carte rouge la ñuy defaral maanaam xaar yàlla en danger ñun loolu du suñu cër du suñu lii maanaam ñun xaar maanaam tey li ñuy dund ni xamuñu ko quoi ñu xamuñu li ñuy dund ni lan la parce que génération bi judd 2005 léegi ni booy baax na kenn xamul booy lan lañ bëgg booy ne maanaam lu leen neex lay def si dëkk bi lu leen neex day toog fii du ñu di tey suñu yaay ak suñu mag yi ak suñu rax yi kenn mënatul xëy faja hmm. mais di xëy faja dem marché booy la leen di carte di leen agressé di nangu seen bagage te loolu te loolu maanaam du seen cër du seen wareef hmm. ah, boo nekkee ndaw da ngay xëy dem di liggéey di ñàkk di amal sa bopp hmm. moo gën lii nag wax dëgg yaa ñu jëlin si suñu matuwaay parce que tey ñu wax ñu waxoon dem si réunion bi lañu ñu waxaat rek ñu kenn ku ci neexal mais mais avant avant réunion bi mën nga ñu ñëwal ci ci ci ci anam yi mu affaire bi amee ak ak ak ak ni mu demee waaw affaire bi man wax dëgg yàlla man man maa yeew damaa xëy suba dem di liggéey jënd fi ndékk pare prépare pour dem liggéey si laa yëg ne fa bi dégg ñu ne diw rek ngaa jàpp déma suggi na mais faatu na ki ko jam la ki ko jam lu lan la ci moom ko jam ñoom ñaar ñoo bokk kër doomu nijaay doomu bàjjan la ñoo bokk benn kër mhm. famille bi la doomu nijaay doomu bàjjan waaw noonu la demee noonu la demee mais lan lan moo indi jàmm bi histoire wax di man moom musuñu histoire xaw ma lu mu demee noonu jot dama yeew mhm. aji dem gi tey boo ñu doon wax ay jukkoom ay qualité am lan nga ñuy wax ci moom booy bi wax dëgg yàlla moom booy bu cool la mhm. amul benn problème man tamit nit ku nekk tamit maa lu ngay yaa xam mhm. mais ma ko xamoon ma naan tons na def yaa ngi ci jàmm wax dëgg yàlla daf ku mu ku ko mag dana naan tons na def wala mën a yaay booy na nga def jox ñëpp cër boo gisee tey bisim tey nu mel ni tey maanaam tey loolu moom moo ko liggéey parce que dafa respecté doomu jox nit cër mu ko xamaag ko xamaag lépp da lay jox cër boo foo ko day kaf di di fecc xam di ambiance di def lu ne man daal loolu laa wax dëgg yàlla ci ci a toll non booy xale la kii xale bu ndaw la kii nga ne ko ay vingt cinq ans xale ndaw la juddul yàlla xam na Mhm. mais lu mel ni da ngeen koy faral di gis xaar yàlla wala c'est la première fois. dama li du benn di ñaar. ah bon lii laa du benn di ñaar xaar yàlla. Mhm. xëy na xëy na tey gaa yi si doog a jëm mais lii du benn di ñaar maanaam xaar yàlla ñu dañoo sonn. Mhm. dañoo sonn dañoo taay wax dëgg yàlla. te instant yi suñu suñu yaay suñu pap suñu papa yi sax mënatuñu dem fajar jumaa ndax booy. papa bu xëy suba fajar dem jumaa di julli ji booy da lay kar nangu li nga yor dañu war a dëgg rek mais xanaa booy dëkkuñu fi booy xaaj bi yëpp dëkkuñu fi dañ fiy fere muy dëkkuñu fi booy xaaj bi yëpp dëkkuñu fi dañ fiy fere mooy muy dëkkuñu fi tamit lool maanaam ma ma autorité yi xaar yàlla laay waxal ma chef de quartier yeeg ak suñu mairie bi nañ jóg si lii mën a affaire yi di gën a am doole parce que lii tamit bu nga bàyyi mu jëma kenn xamoo ko de parce que li ma gis ni xaar yàlla man da wax dëgg yàlla man newoon man damay damay ji damay dem uti feneen nekk dem dëkk fa man sama njaboot parce que li ma gis ni bu nga fa bàyyi ñoom wala ñoom wala bi sama di nga fi dégg gi quoi voilà yokkal leen sécurité bi sécurité mooy police bi police bi tamit wax dëgg yàlla seen liggéey dafa des parce que tamit ñu mel ne mënu fa am xaar yàlla après ñu bàyyi booy fi ñu toog di def leen neex loolu du yoon police Grand dañu fa war a ñëw fii chaque jour di di xool booy mais ñu fiy ñëw fii gaare seen oto booy daw dàqante booy jaar dem dem gaare seen oto loolu loolu liggéey loolu liggéey ñoo war a jóg def si maanaam waa Xaajaar sécurité bu doy loolu mooy yoon mais tam liggéey ni du liggéey jàpp booy encaissé nangu seen xaalis loolu mooy lan ñoom abasa ñu ñoom dañuy liggéey loolu du liggéey la lan ngeen doon réunion seen réunion bi lu ñu maanaam mooy maanaam oto yi nga xam ne dañu nekk si terrain bi mécanicien parce que oto booy bu ñu agressé fa lay dem di laaxatu la oto yooyu dañ ko fiy ba pare am na réunion a defaat maanaam pour sensibiliser waa xaar yàlla maanaam affaire de banditisme pour mu mujjee xaar parce que booy la ku judd rek amoon lay xalaat lu maanaam génn agressé sa sàcc kese. man ma waxoon rek ñu daal man nee naa man laqatuma nëbbatuma li li ma li suñu xeexu suñu xeexu bopp la man moom wax dëgg yàlla man moom damay dem ba mu jeex ba tey man xeexalu xeexlu ma kenn ma sama doom laay xeexal pour ëllëg avenir am waaw. ñu ngi lay sant di la gërëm euh, di kontaan ci yow xanaa après ñu jéem a dugg ci biir jéem a xoolaat ay mbokkam ñi ci mun a wax. ne ni euh, kenn du ko laajte. moom ak Aji Dem gi mu mel ni que ñoo bokk nday ak baay euh, ñu ngi leen nuyu mbokk. ñu ngi leen di fay kenn waa chaîne bi ñu leen di fay bu baax a baax. ñu ngi la koy masawu di la ko jàll yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana mais mais Aji Dem gi tey soo ñu doon wax. anam bi ni mu ni mu amee ak ni mu demee mën nga ñu ci ñëwal tuuti. ñoo xam nga man mooy li ma waxoon rek. Mm-hmm. man fekkuma fi. Mm-hmm. man daanaka li may ñëw ci kër gi bariwut. Mm-hmm. man maa ngi dëkkee ba côté Jona fa démb ci matin bi lañ ma woo téléphone ne ma ñëwal sarak instant ni jam nañ ko mais faatu na si laa ñëwee ma yem ci mais vu que am na ñoo xamante ne jot nañ ma ci expliquer as tuut mais man mooy li may wax rek euh, mbir mi yàlla suñ borom mooy dogal comme que ay mbokk lañ te ki mu jàppanteel ba mu def ko li kooku yaayam ak man sam papa ñoo bokk benn papa Ah, sama mbokk la ci kër gi fii lañ dëkk mhm. ci kër gi lañ juddoo mhm. ci kër gi lañ yaroo ñun ñëpp mhm. man dama dem ba gis ni suñu kër fii amatul sécurité moo tax ma jéem a déménager ma dem dëkk ji man kese mais à chaque fois damay ñëw seet ci sama yaay ak sama papa su ma leen di indi lu ma leen di indil ma indi leen ko après ma dem nii la demee mais man moom dama ne mbir mi yàlla suñu borom moo ko dogal man loolu laa ko jàppee mbir mi yàlla suñu borom moo ko moo ko dogal wante tey soo ñu doon wax sa rakk euh, ban ban ban ban façon góor yàlla la ay qualité am am ay jikkoom xam. Euh, Daouda dafa nekk nit koo xamante ne nit ku calme. Mm-hmm. bari fo bari caaxaan maanaam moom kaf kaf la koy jëlee. Mm-hmm. man moom euh, am nañ benn complicité boo xamante ne daanaka du ma ne complicité la sax mais dafa nekk nit koo xamante ne ci man. Mm-hmm. daf ma taf. parce que man fu ne jaar naa ko ak moom pour rek mu jël ci droit chemin. fu ne jaar naa ko ak moom. mais vu que du ma leen nëbb ñun suñu kër fii c'est le bordel. kër gi kër gi mooy li may wax sànq maa ngi lancé waat appel. na autorités yi dimbali ñu ci kër gi parce que képp kuy jàng tux yàmbaa ci kër gi nga koy jàngee. képp koo xamante ne ni xale bu dëkk xaar yàlla buy jàng tux yàmbaa. Mhm. suñu kër fii nga koy jàngee ci kaw teraas bi. képp kuy jaay yàmba wala ngay jàng jaay yàmba suñu biir kër fii nga koy defee même boo indee yàmba fii lañ koy séddoowee. lu garaw laa tegal ni ndax lan kër goo xamante ne ni famille lañ boo xam ne jibowuñu hmm. affaire de doom baay hmm. moo am ci famille bi hmm. ñii nii lañ def ñii nii lañ def problème par force day am duñu mën a jiboo léegi imagine toi yow sa doom su ma ko laalee danga may naan bàyyil sama doom laalal sa doom juróo ko loolu bu amee ci kër kër boo du jub. bu ñu déggalul kenn ku ci nekk da ngay def du n'importe quoi. maanaam su ma la déggee tuuti maanaam dafa mel ni kër gi dafa amul kilifa wala amuñu kilifa buñ fi rus. maanaam voilà amuñu kilifa buñ fi rus am na kilifa de. mais amuñu kilifa buñ fi rus. Hmm. ñun sët ñun ñoo yàq suñu kër maam ndax ñun ñoo nangul tegu ci yoon gu baax. jël suñu kër uuf ko defaraat ko. Hmm. comme que nag mënuñu loolu ñun lenn la ñuy lancé man man man sama jëmi bopp. Hmm. nañ ñu jàppale. autorités nañ jël mbir mi en mais jàppale ñu balaa leneen di fi amaat. lii guleet la rek du lii kese ndax fii yàgg na am ay jam jël yóbbu hôpital ñu faj nëpp nëppal jam yu jël yóbbu hôpital nëpp nëppal. loolu mënul continuer lu mel nii nag c'est la première fois. moo tax ñuy ñaan ñu jàppale ñu. sonn nañu. ñu dimbali ñu suñu kër gi xaar yàlla ba xaar yàlla daj. suñu buntu kër fii rek la autopolice taxaw. loolu je je le et voix haute et fort wallahi azim suñu kër fii rek la auto police di taxaw xaar yàlla ba xaar yàlla de. loolu ku nekk mën na ma koo seede dafa ñaaw. borom kër gi liggéeyul loolu fa mu tëdd tey. Mhm. amul lu ko neex. Mhm. moo tax nag may ñaan autorité ñu jàppale ñu. Mhm. ñu ñëw régler ñu suñu kër gi. ñu ngi leen di ñaan li laay war a suul yi nañu jàppale sonn nañ trop. képp kuy jàng tux yàmba wala kuy indi yàmbaa pour tux suñu kër nga koy tuxee am c'est le bordel sans loi la lu waay neex bëgg def nit mën na jaar ci escalier yéeg ba ci kaw terrasse bi rey nit wàcc te kenn du ko xam. Hmm? lu garaaw laa la tegal suñu kër gii kenn du ko miim koo jox micro du ko miim. que koñ bi tamit am na am na sécurité. koñ bi mësul am kaaraange te am na autorité yoo xam ne xam nañ ci dara. suñu koñ bi mësul am kaaraange man maa wax loolu. kenn musul nekk ci ci ci jàmm ci koñ guddi gi kenn du nelaw guddi gi moom kenn du nelaw mm-hmm. ndax gaa yi fii la ñuy nekk des fois ñuy xeex des fois ñuy jamante fii ci mbedd mi booy des fois dañuy naan ba mandi nekk fii oto bu romb ñu dóor la nga wàcc ñu nangu li nga yor fii ci biir koñ bi mm-hmm. du feneen moo tax nag may lancer appel na ñu jàppale mm-hmm. sonn nañ sonn nañ trop ndax kii dem nii sama rakk la tey dem na kan moo perte du man man maa pet jotoon naa am amul jabar xale bu ndaw la vingt cinq oh. ans la am. xale bu ndaw la. ci buntu àdduna waaw. mu ngi doog a am vingt cinq ans. ci la gaañu. mais lan mooy sa kàddu ndénkaane euh, ci comportement bi nga jot a expliqué say rakk say jarbaat say doom ñi nga xam ne ñi ngi nekk ay xale tey boo amee loo leen di conseil pour ñu tegu ci yoon bu baax lan lay lan lay doon. li di wax mooy. nañu góorgóorlu waaye du yomb xam nga tax ma ne la du yomb ndax kër gi ñu yaroo la amul sécurité xale nu leen neex lañ yaroo koo ci laal doomam yaayam jug wax wala pàppam jug wax xale bu tegul ci yoon nga bëgg koo teg ci yoon sax papam jug wax wala yaayam jug wax foofu nooy yaree xale. du yomb. après xale yooyu ñooy def yi mhm. di reyante ci mbedd mi mhm. ndax amaana sa doom buy def dara. nit di la ko yaral da ngay bàyyi mu yaral la ko mm-hmm. ndax bu njëkk looloo amoon xale bu defee lu lu yoon ka ca mbedd ma da koy yar indi ko ci kër gi ka ca kër ga dollil ko mais mm-hmm. yow imagine toi nga jël doomi jàmbur dóor ko tey jamono ji boo ko dóoree dañ lay yóbbu police du yomb nii la demee mm-hmm. du yomb pour nga yar sa doom ci environnement bi du yomb du yomb du yomb pour nga yar sa doom ci environnement bu mel ni du yomb ñu ngi lay sant di la gërëm te di la masawu tamit di la ñaanal yàlla yal na leen yàlla may xolu muñ parce que tamit métti na lool métti na lool wante fa mu jëm yaa na ko gënal fa mu jógee ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam